ndox mu ñuul kukk di ball jugekat ci Arafat koñu Senzala di dugg ci biir marché Grand Yoff di xeeñ xunn loole la ñi fa dëkkee di dund jamono ji jili deex daal ci yëkkate ay kaddu di ko naqarlu depuis taw bi mu fi tawoon vendredi bee passé taw bu metti boobu depuis boobu ba léegi ndox bi mi ngi ball conseil yaa ngi ball di génn di romb di dem ba marché day jóge si koñ bi di dem ba marché ba boo xoolee yéen ñi taxaw sax dini interview yi xet mi ngi leen di bëgg a man mi ngi ñuy bëgg rey mu yokk ci di artu askan di faral di tuur ay mbalit ci biir égout yi complice lañ ci ndax tey bu fekkoon sànni woon si sunu mbalit ñu si yenn affaire peut-être lii mun na bañ a am moo tax il faut ñu xoolaat sunu doxalin bu baax a baax bàyyi mbalit mu ñuy sànni saa tawee efforts yi ñuy sànni saa tawee il faut ñun population bi ñu bàyyi ko ñun tamit mu nekk tamit lu leen nar jural ay jàngoro ba tax na ñi ci woo ONAS ak ñiy jiite commune bi waa ONAS ñu ñëw jàppale waa gox bi parce que mun nañ daay feebar yoo xamante ni xam fan lañ koy faje ak fan lay jóge jur waa grand son nañ trop mairie bi lenn moom du compétence am mais na si jàpp moom it xool naka lay taxawalee benn équipe boo xamante ni mun nan ñëw commencé liggéey bi ànd seeg waa koñ bi la temps waa ONAS di ñëw ngir lu nu mel daa di deñ dàkku benn yoon daa di wàcc ci mbedd mi ngir fësal seen nakkar